salaamaaleykum mbokki ñi seetaan à travers Mprod may amaat mbégte ak contentement gu bare bare bëri di jàkkaarloo waat ak yéen ci biir Mprod nee naa leen chaque jour li ngeen di bëgg euh, mu leen di neex ci lay dox tubaarikàlla li ngeen di soxla laa leen di génneel mais tey macha allah dama am invité de marque su ma nee invité de marque nag xel yi day dem fu bëri tubaarikàlla tonton Médoune koo xamante ne euh, doomu Sénégal la mais toogul Sénégal waaye fa ne tout temps dafay représenter Sénégal di doomu banlieue di nit ku am lu mu bëgg koo xamante ne marqué na empreinte am ci wàllu ba muy yëngu tubaarikàlla macha allah donte nekkul suñu réew waaye tey jii booy wax Sénégal mënoo wax Sénégal te tuddoo ki nga xamante ne mooy Griff Sougou di doomu Sénégal di dund fële nga xamante mooy États-Unis d'Amérique moom laa am comme invité tey tubaarikàlla dañuy waxtaan jël lépp nag def ko carte sur table Griff ne daa pare pour étaler lépp ñuy wax benn par benn par benn par benn nee na moom su ma dawul du daw te man du ma daw kat kon tey moom waajal leen maa ngi lay ñëpp di di sant ñëpp nuyu li seen kii bi nga xamante ne vraiment ñëpp koy seetaan nag en pro ñëpp koy si àdduna. waaw saa ma su ma nekkee Amérique dama koy seetaan xam nga ndax euh, ay jeunes suñuy jéem a suñuy dara dañu war a jàppale parce que jàppal mooy indi loolu si àdduna Euh, bala maa tontu si lu bari tamit nag damay gërëm dëkk bi ma jógee muy Amérique mu nekk euh, surtout Atlanta nga xamante ne lépp lu ma mën rek fa laa ko amee euh, ki ñuy wax xaarim Amar tamit indi ma Atlanta ma nekk faak tamit sama jëwriñ papa Amar xam nga ñooñu ba àdduna tukki du ma la mën a fàtte parce que ñoom ñoo tax ma ñëw Atlanta di nuyu tamit suñu kilifa yi nekk Atlanta association sénégalais bi yëpp ñu leen nuyu di nuyu association gambienne bi di nuyu ko si mel ne sunu grand Ahmed Fofana di nuyu sunu grand boo xam ne Serigne Mbaye ba ma ñëwee fii daf ma jox ngeen di kër jox ma oto jox ma lépp dama griffe doo dal fenn fii ngay fii ngay dal ama ah, kooku oma fayam bañ a ko démb dafa ma griffe ma ne ah, ma sa xaalis jeexee maa ngi yónni kenn indi la xaalis jox la ko. ma ne ko non non parce que loolu dafa rafet te ñoo bokkoon nekk Amérique. Mm-hmm. ah Serigne Mbaye di xalifa maa ngi koy gërëm bu baax waaw. jërëjëf. ah dégg nga néew bu am solo bu nga xamante ne kii di Griff Sougou def na ko tubaarikàlla macha allah nee naa leen tey dara du leen romb ndax ah ndaanaan nag mooy jàkkaarloog ndaanaan tubaarikàlla te ndaanaan bu daan tënk ci ndaa di naan lépp nag fi muy xewee mooy biir impro tontu mi dun nee naa la dañ maa yónni yaa xamti ma ma jàkkaarloog Griff Sougou tey am mbégte nag bu baax a baax di figoog moom waaye Griff buñ doon wax tey kan mooy Griff la nga ñu mën a dañ koy njëkkee dañ koy njëkkee si xol bu rafet njëkk ko si yërmande njëkk fa nag euh, jaar fu metti man maa ngi juddoo Kaolack màggee màggee euh, Pikine yeggale Parcelles Assainies ma nekkoon koo xam ne euh, wax dëgg yàlla dama doon ambulant mosuma bëgg di bootu si kenn te aussi tamit damay gis ku ñëpp ku ñëpp bandone ma jël la defar la ànd ak yow parce que mosuma nangu di ànd ak sax ko am xaalis ma ne ko dinaa dugg Sénégal ba génn te kenn du ma gis parce que comme que dañoo dem ba nekk na àdduna dafa doy waar euh, soo àndee ñu di da ngay bootu wala da ngay cogg wala nangam nangam te léegi dañoo nekk si àdduna boo xam ne soo amul xaalis taluñu la. soo amul xaalis lijjantiwuñ la xeebaate bi moo fi bari te xeebaate xeebaate su baree Amérique Amérique yi gëmul loolu tey soo gisee nit ñi di tromper nit ñi di tax da ngay gis ko dem luy parce que li tax muy def loolu yorul de mais xam na ne nit ñi ay complexe lañ. waaw pour ñu faale ko. te loolu amatul su dee da nga nit. tey mu yori milliard. sol moo ko seen ay cara xam. du am oto mu dawal sax taxi la jël fu mu jëm. te yoroon lu dul jeex. mais looloo tax tey man ma gën na ñëfe sama life ba dëkk bu ma dem. dama fay marqué sama apprenti ba kenn du ma yeb. ku ma mën a jàppale dama lay jàppale ku ma mën a taxaw dama lay taxaw tey si sama vidéo yu bëri may def da gis ñoo xam dañ koy géeree dafa am ñoo xam dañ koy xeexee mais man lépp lu may wax gëm sama bopp la ndax gëm sama bopp mooy waruma poosu kenn xam nga lu ma waay defar rek ah jël naa ko joxaat ko doomu aadama loolu rek la dama naan dama naan sama benn xarit ki toog sama bi daa ma doo ami milliard parce que loo yor jox ko ba ma ànd yow ba léegi man dama yéemu ma ne loolu lañ fi am xëy na su ma nee ba taxaw lu may joxe amatuma ko yàlla daf may rey parce que loolu moo naa ma am mission laa la joxal ni malaaka ñëwee di jël si doomu aadama noonu la yàlla di joxe ay doomu aadama ñuy jox ay doomu aadama loolu rek la dégg ngeen kàddu yi am solo yow mi yëkkati tubaarikàlla lépp ci nuyoo bi te daa mel ne fi mu nii tonto Medoune Griff daa takk ba mel ne sayu mat wu jëm màggalu Tuuba kenn musul gis li man damaa commencé tax delloo avance <laughs> euh, mais Griff ku ne Griff ne Sandaga Griff ak Sandaga waaw Sandaga Sandaga ba ma fay dem sol na euh, jeunes yi bëri demuñu fa. parce que ma doon jaay mbuus di jaay mouchoir boobu ay Touba Sandaga yëpp ay usine bataa la woon. parce que ma nekkoon tamit koo xam ne wax dëgg yàlla dama bëggoon dama bëggoon avancé. te su ma fekkee su lax ma bëgg avancé mooy parce que nit warut a warut a bëgg lu yomb. nit watu nit foog nga sonn képp bànneex boo gis yow ma dafay tiis danga koy ñeme bànneexu soo ko ñëwul doo bànneexu koo gis mu ne tekk deful buru rek am na fu mu jaar fu metti waaw koo gis muy def bruit rek jaarul fenn li mu yor koo yomb trop parce que léegi Sénégal bi Sénégal yi bruit boobu ñuy gis noonu léegi xool ñaata jeunes ñoo am problème Sénégal ñaata jeunes ñoo fi am problème pour lan parce que ñoo wane lu nekkul si ñoom. Hmm. njëkkee wuñ ko si seen waajur yi dafa luñ dafa ñu ko fuñ ko war a def. Hmm. teral luñ ko ñu war a teral jàppale wuñ ko war a jàppale. parce que xam nga ñun dafa am fu ñuy bëgg di jëm chaque jour. dañoo fay bëgg di dem mais tey fa ma war a def su ma fa deful ña ma war a dimbali dimbaluma leen ña ma war a jox joxuma leen su ma sonnee damay wéet su ma feebaree damay wéet comme balaa caag yow loo yor jox ko doomu aadama yi léeg ñu ne griffe la moo tax ngay dimbali américain yi parce que si sama business américain ñoo ñoo ñoo ñoo may jàppale. léegi pourquoi ñoom population xobles mooy yalwaankat yu nekk Sénégal Amérique ñoo ëpp fii population bi mooy ñu pauvre moo ëpp population bi. tey bëri na jeunes yoo xam ne ñu ngi Amérique am jom bëri na jeunes yoo xam ne ñu ngi Amérique ñàkk jom xam nga moo tax nit ñi dañoo jekk su fi mu toll nii pour yeewu xam àdduna Sandaga tey su ma fa duggee sax barke Serigne fal damay sol masque bu ngand pour nit ñi bañ maa xàmmee parce que telement joxe bi mooy bari ba su ma am yoo xam ne sama doxalin la ñuy gis sax waa kii du griffe xam nga ku bëri lu su ma gisee sax nit di am jom man dama lay bëgg dama dama lay gëm damay am damay am sa entourage du ma jàppal kenn mer nag baa may soxore n baa may iñaane nit. xam nga tey bëri na jeunes yoo xam ne tey daf naa leen tey ñu doon milliardaire. billaay wallaay. xam nga mais teewul su ma gisee ñuy dem damay kontaan pour bëgg leen jàppale ñu gën a avancé dama si am benn xolu ki ñaan. waaw man loolu laa gëm. waaw. Ah, am na amatina solo amatina solo tubaarikàlla nee naa leen ibbi leen seen i bët. ibbi seen i nopp bàyyi ma xel tubaarikàlla Griff laa jàkkaarloo waaye Griff mu mel ne dafa am ay chaque jour message yu nga koy lancé peut-être yow. sa gëm-gëm ngay waxee euh, euh, euh, ci yoon bi ngay doxee ci loolu ngay waxee mais am na ñoo xamante ne xëy na duñ la dégg dañuy dagg vidéo yi def ko geerukaay. waaw xam nga xam nga àdduna ku bëgg a geer yaay geer ndax yàlla geeru la kenn yàlla da ngay def lu bon sax di def lu bon mu gën laa dundal kii def lu baax di maye mu teel laa rey yàlla geeru kenn ñun doomu aadama ñooy geer suñu biir de parce ma lax suñu xol yi ñoo tàppewul hmm. dañuy gis jamit yi dem. ñu ne yorul da koo àbbu mënul dafa kale sama xarit bi dama ko sàng ne ko man du ma ma dem fenn mënu ma la mënu ma griffe ko ma ne ko ma ne ko parce que benn lu am rek nga da koo àbbu moomu ko yorul su ma génnee diw ana diw sax ah diw dafa kale mënatul mais loolu man billaahi wallaahi jikko jooju neexu neexu neexu ñu te li ma gën a contre si àdduna mooy ku bëggul nit avancé ëppagul nit dem. xam nga tey tey ñu war a jël ah yow seeni mbir ñu partagé ko pour ñeneen jot ko ñu xam ne suñu réew am na loo xam ne mu ngi avancé suñu dëkk. xam nga mais tey su woon tey ah jëm jëmi Gueye de mu ngi ibi télé nga gis ñu commencé gas ay peel jël perkàllal di xaar nga suruf ñu ne Médoune la nga def nii ñu gas ay peel suñu paree yàq der peinture wax lu ne. léegi léegi ne soo jékki-jékkoon léegi léegi di ànd ak Médoune ay ati at wala nga ni ngay liggéey Médoune Médoune am ay milliards. tey suba suba nga arrêté ñu ne dafa triande Médoune wala tey sa patron bi ngay liggéeyal mu leer na yow yaa ngi am sa salaire yow am nga patron nga war a solu sa patron am sam nga lekk loolu fu ñu ko teg moo tax nit da ngay gëm sa bopp. fooy mënti nekk te gëmoo sa bopp barke rasulaay da malaaka yi ñoo lay gas suul la parce que dañu xam ne yow àndoog yàlla doomu aadama nga àndal te loolu moo bëri Sénégal mooy jayaate dunguru coggu ak suq dunguru coggu sukk diw kala na diw am na diw torox na te nit ñi duñ dem fenn fu fu amul xaalis de duñ fa dem de ngénte soo amee soo soo nekkee walla kaan doo fa gis kenn da ngay am dara nga gis ñu tàggal la bër wi juróom-ñaari fan ah yoonu dara may mayu ñu joxuñu. waaw loolu fa soo amul xaalis duñ la wuyu ji duñ la te loolu c'est pas normal man da man wax naa benn émission maa ngi leen ñun Sénégalais yi nekk Atlanta sa déggoowuñu mun mun ñu nekk Europe nekk yeneen dëkk yi déggoowuñu parce que soxorante bee bari ki lay suuxal chaque jour mooy sa nit da ngay wax sa doom day doom day waxaat doom dayam doom day waxaat doom dayam. léegi da ngay wax sa doom day. doom day waxaat doom dayam doom day waxaat doom dayam parce que li waral loolu ne ma la tax. damay ñëw ne la jëmi ah diw dafa am ay problème mais bu ko wax kenn suñu ñaar la yem. jëmi dem waxaat ko beneen doom ndayam wax ji génn ba fenn kan moo ko wax soo amee ba soo amee sa vie privée xam def dama nga tim sa seetu di wax ak seetu bi xam nga sa bopp ngay waxal toog yedd sa bopp mais ñun li may ñaan nit. mu bëgg koo am si àdduna yàlla teral ko na am xol bu rafet ak yërmande lu waaye nekk mu yéene ko ko soo ko defee billaahi wallaahi ba àdduna tukki loo ñaan suñu borom yàlla may la ko. vidéo yi ñu koy xeexeek ñu koy histoire ñu koy def lépp loolu ñoom la parce que Sénégal mooy dëkk këpp këppi kole lu bon ne boo fii lu bon fi gën a dox de. fii bil la xool benn moo raw Amérique Sénégal bi moo raw Amérique. moo raw Amérique téeméeri junni yoon parce que américain yi dina la wan ne la man dama laa toppee xaalis moom dama koy wan ne américain da da am mu ànd amoo faale wala lijjantul dem na yoram mais Sénégal nag da lay kurti kurti di la def nii di la def yaa fi nekk yow la yàlla teg nangam nangam soo ko wane ginnaaw mu muulu la mais li fi am tey tey benn américain nee na sooy enquête Sénégal koo bëgg a jàpp di ko jàpp. ma ne ko lay tax mu ne dama dugg car rapide wala kalandoo noonu dugg car rapide wala kalandoo nga xool mu ne ma la xew fa lañ koy waxtaanee ba nga xam ki ko def. xaw dafa mos nga Afrique fii. que américain yaa ngi fi fees dell dégg olof. nekk si biir nit ñi. Mhm. yaa ngi fi fees dell si biir nit ba pare mu mel ne li nga wax léegi ne dangay am dara ñu lay côtoyer nga ñàkk ñu sori la ba ci mu showbiz bi ak artistes yi dañ ko ciy gis. mais dal na ma man góob du ma déglu kenn ku dul nongoloo Wally Seck moo mon ami. Mhm. ba ma koy xam yorul dara mhm. Pape Diouf ma koy xam. demul nii man nangu loolu laay déglu ku ne xam ne ne sama nangu laay déglu lu mu tax dama dama ko xam si ngor. Ñambe Gueye boo ko njëkk présenté. ñu doon def tàkkusaanu Pikine ñoom Momar Gueye ndeysaan parce que xam nga la nangu la dee ñu ba dañ ko fàtte. Pape Diouf laa ko mujjee woo boo ñëwee invité ma këram damay ne woo nuyu leen desat lu ma déglu kenn Pape su ñu nee Amérique sama oto kii la siy déglu ku ma yëg ma yëg la ku ma yëgul yëgu ma la talu ma la de. soo fekkee Amérique nag di nga xam ne ay jeunes yu am jëmoo fa nekk waaw du ma nekk fi di lambar lambari fenn de di taxawaalu fenn wala nangam wala def nangam nangam ndax benn jour dafa am koy koy wax ak ma naa ma girif waaw la ma doon dëgg la nangam nangam ma ne ko baatar bu njëkk ba sël la woon mais yéen da ngeen di baataree di wanewu te yéen dëkkandoo dëkkandoo yi ngeen nekk lekk ñu naanuñu loolu nga yaakaar ne àq boobu dina leen jikk dem leen ngeen xool ngeen jëmale kanam tey man man dama naw dama naw dama naw Wally Seck de dama naw Pape Diouf dama leen naw xam la ma naw leen ak artiste ndaw yi yëpp parce que wala Wally dafa dund lu méttee méttee méttee méttee méttee billaahi ñu bëri xamuñu ko nag Wally doon na fanaan sa si dafa jaa dund lu métti ñu bëri dañ ko faale woon ak même même même kii euh, kii ndur sa euh, fecckat bi keneen ki ku tuuti ki tamit tamit nekk si dijee boobu su faatu waree ñoom ñëpp Wally dund lu mett tey su ma see Wally di tabax ay kër wal def yenn yi damay kontaan xam la may kontaan Wally su ñuy Amérique du ma gis de parce que man dafa am foo may teer ma teg la waaye dama ko yéene jàmm parce que xam nga su ma gisee mu dund lu metti ba pare tey di def lu baax xolam daa rafet parce que ma xam ne kii kat wax dëgg yàlla ba ma koy xam ah metti woon na si moom trop. xam nga léegi tey ña topp si ginnaawam di dang di rey seen bopp duñ duñ jéem a def na waale. duñ ko jéem def léegi su waale su nekk si problème léegi kon ñoom ñëpp dañuy nekk si problème ah xam nga waale mu mënta dàq kenn mënta wax kenn demal fi nangam waaye ña nekk si ginnaaw artistes yi ñëpp laa wax nag ak si nekk si ginnaaw mbër yi nañ jéem a am jom demal seen bopp non non non li nii du loo xamante ne américain suy ànd ak yow avancement mu dem bala fa. baa xam lay def la. billaay am na mu gis fan yi Sénégal di ko déglu fi naan ah yoo rek kooku rey nañ ko avant kase di génn. waaw waaw kooku rey nañ ko avant kase di génn. parce que morom la américain suy ànd mu leer na yow euh, da nga koy war a njëkk avancé mu liggéey la parce que xam nga day bëgg ngeen a avancé ne woo dem mais. fii Sénégal amul loolu damay xeex ngir diw wala ma rayante ngir diw waaw du ma ko def xalaatuma ko si àdduna. parce ma la wax. nan ko diw ba mu la koy xeeb maa la ko nit ñi. déggoo li ma la wax man li ma gëm mooy. damay topp si ginnaaw waal Seck pour jàngale muy def. damay topp si ginnaaw Pape Diouf ngir jàngale muy def. damay topp si ginnaaw Balla Gaye ngir jàngale muy def. Balla Gaye wan la yoon bi nga amee xaalis wala nga xool du ma garder benn mbër. du ma suqi benn mbër wala ji cogg benn artiste wala benn du ma ko def du ma ko def parce que ma lax nangaloo nee na am jom mën jom ko gën jur yi ne léegi fajul dara du ko def. am parlant de am jom mën jom moo ko gën loolu àdduna ñëpp xam ne nangu la woy na ko macha allah te tout le temps dañ ciy revenir di ci indi ay leçons de morale di ko si joxe mais mu mel ne jom ak ngor dafa ñu Sénégal dañ ko rafet léegi. waaw loolu laa wax dama ne la soo tekkiwul si dëkk bi dara am nga problème. amal xaalis ba daanu man itam ma dal dund naa fi lu métti nag. billaay wallaay tax dund naa fi lu métti kii may wax ni xam na si dara dem naa ba ne ba ne leen doon dem jënd doon wut peel ngeen suul que daan naa dimbali ay nit jàppale ay nit fair play mii di jàpp boo xam ne si dara dara ma ngi fi yaa fi mën jàppale ay nit ma dem bañ amatuma dara ku nekk naa ngir daanu na ngir sànni leen ko zile dina dof ngir wiiru nangam nangam mais pas sama mais yàlla léeg mu teg la nattu. parce que la nga lu war a loolu dalay wan ne kaama wan la ñi la bëgg ak ñi la bañ. nga toog am ñoo xam ne nag ay nit lañ dañ lay bàyyi xel. ñoo di la def di la defal teraanga tey am na ñoo xam ne dafa nañ ma teraanga ba am ñoo xam ne te nañ ñëw hôpital France man maa leen fayal seen hôpital ba keroog ñuy génn ndax ngor bi ñu ma ji am ba mu mettee naa ma girif na la nit ñi bàyyi xel ne la nit ñi bàyyi xel kenn mësuma dimbali nag. parce que ku la ñee du la dimbali waaye jom nag yaa koy amal sa bopp ndax am na ñoo xam ne say wërsëg ak seeni wërsëg ñooy ànd. Mm-hmm. ku gàtt wërsëg mooy gaaw a dee. Mm-hmm. parce que suñu dëkk bii dañ lay saraxe ngor amu fi. saraxe ngor amu fi ngor moo fi amul. Mm-hmm. complexe tey maa ngi gis comme Amérique gis boo yoo xam ne dañ nekk foofu di bruit tey soo demoon seen kër yërëm leen. gis mm. boo yoo xam ne dañu nekk Amérique di bruit di tàngal lu ne di ko def soo demoon seen kër yi yërëm leen tey ku si mel ne kii ñëw seet si man yi tey soo tey li mu yor moo ko moom tey am na am na employé yu dul jeex amar amar amar koo fa su ma demoon te dinaa leen fa yebal ngeen dem fa ngeen def ay vidéo mm. te fu mu nekkoon Amérique su ko neexoon tey du jël ay 200 personnes di leen jël ñuy liggéey. xam nga te tey mu ngi nii déplacé ñëw seet si ma su ma xewoon rek dana ma seetlu seetlu parce que dafa xam ne am na fu ñu jaar man ak moom xam nga àdduna ngor boobu moo amatu si yenn doomu mais tey da ngay ànd ak nit léegi suba nga defal ko teraanga si juróom-ñeenti weer benn jour ngeen xuloo rek nga yàq deram ngor boobu est-ce que dina fàttaliku ne kii kat su dee benn fan dina ma teraanga kon benn fan bi bu mu tax ma ñëw ma yàq daram war na ko mën a jaral parce que fàttalikul mais yow kat si un lu tax un benn fan mën na ko war mën a ñëw yàq. non non parce que kooku soo ko defee sa doo gor. ka nga bàyyi mu dal wala da ngay da ngay sa doom ndey bu ma ay waxam waay baa dool la wala nangam nangam. daa perte daa perte yorul. lu ko métti mooy li ma commencé avancé loolu du àdduna. man fii dinaa ñëw du ma kenn du ma fréquenté kenn ku ma gis sa sa yéen gisee parce que da dem ba soo nekk da dem jikko yi doo ko tàmmati parce que nit ñi bëggante wuñu yénte wuñu jàmm ñu nekk Europe ñu nekk Amérique ñoo gën a sonn ñëpp ñenn ñi laa wax na complexe yi nga xam ne dañuy gis Sénégalais yi di leen góondi wala nangam ñu jël seen alal di pasar pasare man man nekk ma si loolu da nga jël noonu nit kër sax mu dem dem kër jàmbur kumpul ma la toll ñu tamit loolu tamit ci ñàkk ngor la man nga gis ku liggéey ay millions tamit joxe ko tabaxal ma kër jékki-jékki ñëw kii wu da ngay jékki-jékki dof. ku bàyyi sa ndey sa baay di joxe bàyyi jàmbur mu tabaxal. wala ni yaayee jàmbur la mag man damay jox sama baay ak ndey su ma deewee ñu xam ne mun sama baay sama compte bancaire sama yaay laa ko jox wala baay du jox ay nijaay ak bàjjan ak tànt ak umpaañ du ma def loolu xeeb say waajur la loolu xeeb say waajur la parce que xam nga lax léegi yow jëmi yow nga ne sama xarit rek ma jox tabaxal ma ma dee sa diggante bi nooy def soo soo neexee tëdd si moo koy xam. kan moo kan moo koy xam sax. ñaata ñoo dee ñaata nit ñoo dee tëdd si xaalisu jàmbur jamono yi te seen mbokk yi yëgul mais bis boo xeebee say waajur di joxe waajur jàmbur ñu lay dencal ak nangam nangam soo moytuwul waaye jàmbur ñoo yónni seen doom ñu posona la sa nga dee. Moodu Moodu day dund lu métti xanaa ma ne corona bi Sénégal la méttee sax mais am na dëkk yu bëri méttu fa parce que gouvernement bi da leen fay tey tey dama seetaan sa benn vidéo Amérique ña fa nekk dama leen ree dama ree ba sonn parce que ma xam ne am nañu bëri dañoo réer Amérique kenn du fa liggéey sax xaalis laa la wax de du ko yàq ku loo ko def rek ne ko sàcc nga wala dóorkat nga wala koo gis Amérique muy def nekk si yenn yi ne ko sàcc nga ne ko trianga ne ko gis laa wax na mu koy def rek laa la wax parce que dëkk ba métti na si liggéey laa la wax pour am xaalis bi métti na. ah léegi na laa jëlee sama xaalis di ko pasar pasare soo gisee fii ñuy pasar pasare pasar pasare loo leen di wax da ko liggéey liggéeyuñ ko ñuy paatari ñu bëri liggéeyuñ ko fubal jun lañ def jàpp joxe. fubal junne jàpp joxe. ruuxarante ñëw dóor jami dóor kii ñaar ñaata foo transfert moo fi am ñaata ñoo fi indi oto ñu dóor leen. koo gis mu takk vers quartier màccatuñ yor cigarette kake naan je suis transfert. te génn diplôme. ñoom ay sukk vert lañ. Ah. sukk vert xam nga sukk vert. mooy courtier. koo <laughs> gis mu sol moo ko sañ. yor escouteur rëy si ngom màccatuñ cee Malboro di xeeñ a parfum neex sol Lacoste du ma la jox sama alal si àdduna ndax nit da ngay dem fa bureau yi nekk nga wax ak ñoom toog ak ñoom mais. na loo maîtriser na muudu muudu yi yow ak faatu faatu yi. Hmm. na ñu xam fi ñuy dugal seen xaas ak seen alal kër suñ la koy jaay dama si notaire notaire di sax dañuy dóor. wii sa yéeg yëpp ay am xoolal lu leer nga dugg si. non dama la wax ah. fii al la apostrophe la. gëstu mbëkkante rek la. da ngay jékki-jékki sa mbëkk kenn. nga fair play. lan la laa nga ni. gëstu mbëkkante la. al la la. mooy xam nga al apostrophe. tant que doo génne di joxe amuñu si yow soxla. damal toog koñ bi nga koñ nga sonn nga xool su nga dee ñu ne milliardaire nga di fees sa kër dañ koy rang parce que loolu lañ gëm. Mm-hmm. tey am na kër yoo xam ne dañ ko doon rang tey seen kër yi rangatuñ leen parce que nit ñi sóoraale wu ñu démb. nit mën naa ñàkk tey suma mu amaat. nit tànk bàyyi woo ko xel rek ah gis nga ñu bëri bëri ñu ngi jàng si dëkk bi ba jeexal te amuñu liggéey. ñu jàngul ñu teg leen fenn fi man loolu ma gën a naqari sama àdduna. ñi am diplôme dañoo war a jàppaloo mais fii dañ lay stage loo ba nga màgget. stage stage stage stage stage doo ma liggéey. waaw parce que ma la chantage baa bëri. Mm-hmm. ñëw si chantage. chantage fi bëri da ngay liggéeyaloon nit bëgg tëddee. Hmm. jox sa bopp joxuma la nga indi ci ko indi ko problème. li nga wax. déggoo li ma la du si aar bi de. Hmm. bureau yu bëri la aar ak fépp si yam. xam nga àdduna lan la gëmal sa bopp gëm li nga doon. Hmm. man xam la may déglu ndongolo. ay parolam daf may dóor. parce que muy wax. kaamal xale bu mu amul dégg-dégg. du ko dégg du ko xam. lépp lu ñuy wax rek leçon la ak bu mu lay jàngal ak bu mu lay wan. xam nga mais nañu jàppale ñu jàng ba amee diplôme. tey nit nga fay école wala sa yaay yu euh, yu la école bañ sax nga dem liggéey ngir nga jàng dimbali ko ëllëg nga ñëw fenn ñu jox la machine. dem naa fenn foo xam ne yàggul dara banque la sax waaye que dama tiit patron yaa ngi toog si climatiseur ñoo ngi toog si tàngoor dama jox eh dinaa indi ventilo leen woo bi mu ànd ak man ñu filmer leen parce que lii c'est pas ñoo ñu liggéey man ne yéen nii ngeen nekkee baa doo man man du ma ko def te américain duñ ko def américain la xam man naw leen doomu aadama lañ gën a respecté si àdduna da ngeen ko sonn sonn sax. woo ambulance mu jël la pour nga dem hôpital ba dem tëdd pour mooy dàq hôtel bi sax ndax dina la dina la raay dina la neexal dina la nangam fii da ngay fekk ñu mbéj la jugal. nga ne dégg dem su may ñëw de sama fali su garab laa indaale lu ma daal lu faj sama bopp ba keroog may yegg dem hôpital ñu may ko ak di ma mbéj ak indi sa carte d'identité yoroo loo hôpital xaw nañ maa rey 2012. fan ba hôpital la. dama accidenté woon dama tur hôpital bi dama woon <laughs> sama loxo bi simee ko ma demee waa ji buux ma tal tal fii waaye bu ñuy yee sonal nga ñun te loolu fi ñaar nit ñoo fiy dee te lu leen rey ñàkk xaalis te Amérique xoolal lu ne mën naa la si àdduna la ngay faj ba nga wér ñu yónnee la ay facture su la neexee fay su la neexee doo fay parce que mën yërmande su loolu la bokk dëkk. benn femme dafa ñëw Amérique fii nii xam nga ko wax ah soxna si de mënatoo wér xam naa ne ay un mois deux mois moo des nga dee. sama benn xarit yónni ma si moom pour ma jox ko xaalis Serigne Mbaye mu yónni si moom pour ma jox ko xaalis euh, New York ba ma demee ndax de dafa amoon problème mu cancer goitre fii dañ ko war a ngay dee de mais américain dañoo dëgg sëriñ bi nekk fii defar ko ko fii parce que sëriñ ko dañ ko war a fii parce que c'est ay heure la ñuy dund. fii dëkk bi na nañu jàppalante te homme de tenue yi ak euh, nañu jël justice te ko fenn parce que fii. damay am xaalis dem gis kenn ne ko ah diw damaa mel xaalis ñu ñëw tëj la dafa yëgoo tinoo Amérique amul loolu soo amee milliard nga tooñ ma ñu xulu ñu ñaar ñoo ñu xeex billaahi wala yow mi am milliard dañuy gën a tëj yow la ñu gën a teg ay problème fii nag man ngir may am xaalis eh, dama jël ma fair play nga tëjal ma ko nii nii rek dara dara te amelu ma dara ñu jël la tëj la te loolu c'est pas normal na Macky Sall dimbali gouver dimbali alkaati yi gis nga réew soo dimbali homme de tenue yi jàppal leen taxawu leen jox leen ay oto jox leen ay logement yu baax jox leen salaire loolu dootu fi amati. ku tooñ sa morom dañ koy lijjanti. corruption du amati. corruption du amati xam nga parce que li loolu gouvernement bi moo taxawul homme de tenue yi xam nga adduna bi dañoo jekk na jëmi kaama ma leen de. gis nga ñu bëri nga bëgg ñu nga dagg jël seen i kër dem tuxu tuxu yeneen dëkk. ak Amérique ak léegi léegi bokkul de xale yi woon lañ bët xale yi jigéen ñi ay complexe lañ soo amul xaalis faale wuñ lañ sama bu baax ah. soxorante bi. ba pare mu ma ni xale yi nag dañoo jël seen bët yëpp teg ko fi mu ne nii tukkikat yi. si yan tukkikat yi. yow yi dalagu la. man ku ma teg sa bët di nga sonn ndax dëkk Amérique ku fa ku fa allantaa allantaan naan fa la griffe nekk pour wër ma ndax li am Amérique li am Amérique amul fenn si àdduna du ma ñëw fii si di xool lenn amu boobu parce maa ngi nekk allantaa jooja. Atlanta Jolie dëkk bi gën a garaaw si Amérique. ak sa laa nekk loo bëgg si am si am si Amérique loo fa mënta gis si àdduna gis ko ku fa ñëw Amérique ñu fa jot a ñëw sax. parce que dañu naan man su ma di jaay neex na daf may jaaxal mais xoolal américain li ne non non que dëkk fii ku fi wër muudu muudu perte ndax muudu muudu kuy jooy kuy jooy <laughs> dañuy wax nii mu la junnee sama tubaab koy sol kii da koo jaar ma kii dafa naa indi yére ma ne ko yaatal ay solo si man tollu ma loolu muudu muudu bu njëkk la woon. ngay ñëw ñuy xaar valise booy daaj ak yooyu takk ko leen ko xar muur moom day ñëw parce que kuy jooy mënta neex kuy àdduna bi fépp fépp a metti Amérique neex de. ndax ba ngi fay nit ñi xaalis <laughs> gars yi nga am alal jox ay sec kon Amérique da nga neex xam nga moodu moodu yu bëree bëri ak faatu faatu yi ay jàmbaar lañ de. billaahi wallaahi soo demee ñu dëkk fi ay jàmbaar lañ mais fii lañ leen di naxee. dangay ngay gis si Facebook bi ma maa piis da nga maa neex da son magoo naa la tantoo naa la ay dóor su subaa ñu na la sama bàjjen na feebar wala sama yaay dóor ku la suñuy kamale Facebook ku la suñuy ñeenti yoon jàmm sante xaar ko de bindal si message xaar ko dafa ko maa ngi lay xaar daf dab bi foto ko balaa une semaine man de dama amoon problème sama doomu feebar nangam nangam dóor magoo naa la da nga maa neex sama nijaay nga lépp dóor la. man amu jot bopp seen bopp. dañuy triandé ba triandé seen bopp ñoom. wala wax ba dañuy dóor rek xam nga di nga dóor ba amatoo ay pexe sa bopp ngay mujj di dóor di jaay say yére say dàll ak say or ak say takkaay. parce que parce que léegi nit ñi comme yéen seen site ba ñu amee ba léegi. nit ñi dañuy gën di yeewu. xam nga parce que yéen dugg si dëkk bi. yéen dugg si askan bi. léeg-léeg ma xool yenn vidéo yoo xam ne damay jooy sama yam day daw parce que damay xam ne man da lii est-ce dund bi ah jar na ko. boobaa dund bi am na dund yoo xam ne dee moo la koy gënal. Hmm. dee léegi xool tey nit ñi liy yàq si àdduna. xool ku si mel ne Alioune Sow. Hmm. xool li mu dimbali si doomu aadama. est-ce que mu siiw mosu ñu ko tuddee làmb soo dégg ñu tuddee ko lenn wala nangam nangam. xam nga parce que ku tabax si te may ko ay employé am. Hmm. dafa lu ne si àdduna. ñooñu doo leen dégg si bruit loolu moo amatul léegi. borom doole yaa ngi dimbalante néew doole yi fréquentation jeunes yi ngay gis te yëpp fréquentation ñëpp jeune ñëpp soo amul xaalis doo nekk seen biir soo yorul as tuuti yaay dem de ataay wala ñoo la ñuy yónni. nga ñàkk fay lambar yi sa ndey liggéeyul sa ndey sa am valeur soo nekk si ay biir nit lu am xaalis yow nga pauvre man dama doon nit su ma saan ànd dañoo doon xaalis de li ñu yor man yoruma ko sax waaye su ma saan ànd jamonoy adonis waaye eh, bu leen laal poos maay fay dañu ma naan girif a dof ki ma njëkk may oto ma girif xam la ma may la oto bi. parce que man xool ñu dañoo am mais yow suñu lekk yaay fay su ma ne yàlla jeexul je suis milliardaire loolu laa doon wax. xëy nag yàlla nag da ngay di nga woote loo xam ne. yàlla yàlla yàlla da lay yëkkati. parce que loolu mooy gëm sa bopp. fii de fii de soo gëmul sa bopp nangu sarax ngay doon parce que am na ñu bëri seen démb fi la fekk. ba muy métti fi la ma fekk de. te ñu bëree bëri fu ñuy jaar tey soo xool tey ay ñoom diggee buus wala ñu bëri dama lay naw. parce que Kamb Ogale kese sikkum naanaa fa lañ doon ñu bëri ñu bëri fa lañ doon toog parce que ñoom buggaan daani mais ñëpp fa lañ doon toog tey ñoom ñëpp gis nga suñu amoon jom duñ yegg fi ñu yegg tey de waaye xam ñu sonn ñu topp seen ginaaw di lambar lambar yi di xeex di dóor di saaga ñooñu sonn de. ñu non énervé ma parce que bëgg kóor bul topp sa kenn di këndëng këndëng daray sa bopp. doo ko def xam nga ngay liggéey si lu ko jar sa dafa baax. tey ngay ànd ak kenn kooku xam sa valeur. dama mës a ñëw daaw am chauffeur chauffeur bi ñu ànd lekk fen mu ne ñaari nga fay ma ne ko ah ñaari plat de fay naa 35000 mu ne ma nooy mën a fayee 35000 te dama fay journée 8000 ma ne ko ah <laughs> man dinaa dugg di la bàyyi si mbedd bi ngay foofu bay lekk ngay lekk mënul sa ërgés jox ma xaalis ma téye ko li ma fay parce que xeebu moo ko ma ne ko sëñ bi est xam na yow mën nga dem ba dimbali ma. parce que loolu dafa am nit da koy suuraale. parce que war naa war a ànd ak kii ma dem di lekk bàyyi chauffeur bi si oto bi moom mu toog di xool ko. léegi kooku noonu dina ma dama xam ne man am na fu jaar ñoom tey dañoo dem ba yàlla dimbali leen. su ma leen xel di leen tuuteel wala nangam du jaar ak ñoom fenn xam nga nit da ngay xalaat di bàyyi doomu aadama àdduna waaye même Sénégal jikko ji njëkk xool soo toogee fenn di wax sax sa daal la njëkk a xool li ñuy def dina nit. waaye a bu yomb yi nga xam ne léegi ay 2000 ak 1000 francs. ah non ah, dafa am njëriñ. àdduna bi lépp a yomb de ba suñu waaye ñëw lépp a yomb de. bu kenn dóor kenn. fi mu soo takkoon ñett kilo or kenn takk fukki kilo plaqué. mënoo koo xam ne da dem di ko téye di xool wala na làmb ah, mënoo koo xam ne fii lépp fi am nee la luy tàkk ak luy melax ak luy lëndama yam xam nga am solo mooy simplal doxal sa dox. lijjanti soo lekkee ma lekk soo naanee ma naan. soo gaaree ma gaaree. lu oto njëkkante njëkkante njëkkante njëkkante suñ bokkee fi ñu jëm foo gaaree ma gaaree. amul sens. dégg nga loolu lu oto gaaw gaaw gaaw fi ñu jëm boo gaaree ma gaaree mais Griff nga nekk immigré nekk biir États-Unis parfois nga gis yenn image yi biir Sénégal lan def bi ci mel ni bi ci mujj rek muy mënd mi. waaw mën bi parce que Sénégal li may toog ba si yàgg ma ne Macky Sall xanaa dafa xamul lu xew parce que gis nga dëkk dëkk da koy defar mais demal Amérique su tawee ba taw xamaa taw yi taw yu gën a garaaw fii doo gis ndox ndox ndox bu taa fii doo ko gis billaay doo ko gis parce que amalax dañoo tracé seen dëkk defar ko fii nag da ngay ko tabax ba pare jël yokkaat di ñëw di puus di puus di nëbbu di puus ba nga ko teg léegi nag fépp fu ndox war a am ñu baare ko. yaa ngi sonal ay nit. te ñi ñuy jox xaalis ñuy lekk xaalis bi sunu Amérique la dañ leen di tëj ay deux cent ans wala cent ans. billaay wallaay gouvernement Amérique jox la xaalis na la liggéeyal nii nga si ñàkkal fayda wala lii nii Amérique laa gis dëkk boo xam ne waxuma la tali tali chaque un mois ñu defar tali chaque un mois dañuy defar tali chaque un mois dañ koy defara fii nag xam lu ñu am jaayante oto bu rafet sama baay am xaalis naa lekk xaalis ay milliards yow nga bàyyi néew doole du sonn lii nii rek lii lii li gis mën na bi àq la maanaam àq bu lu mu teg doomu aadama yi la ñoo xam ne amuñu fu ñu dëkk di yegg si kaw terrasse bi fanaan mais loolu ñu ko gis Modou Modou gis sax dañoon jooy léegi soo ko xoolee loolu doo am doo am courage ñëw Sénégal doo am courage boobu parce que tamit fi lañ dëkk fi lañ juddoo fi lañ yaroo waaye suñ demee dëkk jàmbur ñu may ñu jàmm tubaab yi may ñu jàmm suñu feebaree ñu faj ñu ah, lu mu tar tar corona bi gouvernement bi fay na ñëpp xam nga ba ba semaine bu nekk dañ lay fay ah suñu dëkk corona am fi mu gën a métti tey gouvernement bi war naa gën a taxawu ñëpp nit ñi lu bëree bëree bëri bëri. gis nga mbënd mi soo Amérique la am gars yi ñu jël ay hélicoptère jox leen ay kër ñu dëkk fa xëy na nag doole yi tolloowuñu waaye nag tey dañoo war a xoolaat entourage bi parce que soo xoolee ministre yeeg yenn genn wàll yi ñu bëri seen bopp lañ fi nekkal xam nga am na ñuy liggéey nag. am na ñoo xam ne liggéeyuñu te nit ñu nekk dañoo war a bale bàyyi xel doomu aadama yi munoo nekk sa kër gu rafet di dund di añji reer bàyyi baadoo lay fay di sonn man de Griff sama ngor may ma ko man sama ngor may ma loolu man bëgguma sa di gis nit muy sonn daf may def problème loolu na en parlant de gis nit muy sonn moom gis nit muy sonn mais Griff pare nga pour yow un nga bàyyi États-Unis maanaam ñu Sénégal toog investir. Hmm? non non loolu moom pareewu ma ko. pareewu ma ko dama dama dama sama dëgg rek. lu xam naa pareewu ma ko. parce que fii dafa am ñu fi mën a liggéey ak ñu fi mënul liggéey li la Amérique mën a mën a protéger sa business fii mënuñu la ko protéger fii xam nga man business moo fi am jël la deux mois trois mois xas la. dara fi am ñaata business ñoo fi ñëw daanu ah? foog nga dëgër dëgg mën a dem. Amérique li nga fa mën a meg mënoo meg fii xaaj bi si business tey da gis Amérique ku am place am taal place am après si du mat une semaine ñu fay sa xaalis demal fii nga am benn euh, maanaam dépôt dépôt bu toll ne ay milliards mu tàkk ni ñu lay wax ndeysaan ndeysaan <laughs> ndeysaan nga jëm de ñaata muudu muudu ñoo fi ñëw investir daanu ñaata muudu muudu ñoo indi ay seen i oto ak seeni i yàqule parce que xam nga la war a loolu. yow toppatoo wuñ la dañ toppatoo na paa yi ñëw yaa fi nekk sa ndaay sa nday a baax sa yaay a baax sa ndaay ko liggéey soo yorul dara sa ndaay liggéeyul loolu fa xew de léegi man nañ ma bàyyi man dama ko ñaan senegal yi nañ ma bàyyi may investir Amérique parce que pourtant nag am na doomu Sénégal yu liggéey si man am na ay doomu Sénégal si man mais ñooñu ñu ngi tëral seen waajur mais parce que ma la bés su tàkkoon tey suba ñu fay ma su lakkoon ba jeex ñu fay ma waaye nag fii soo fi amee business da ngay parce que parce que ñi ngay jël ñu lay liggéeyal. non ñoo lay bëgg a yàqal nga suux. xam nga du question ko nag da nga bañ sa réew wala nangam nangam parce que ñi ñii ko amar samay rakk lañ. Mm-hmm. tey jii lañu am loolu doy na jeex na man nag nañ ma bàyyi ma Amérique ma toog ma ma investir parce que ma lax mm-hmm. Amérique lépp lay jaar si yoon te soo su la neexee nga daanu nga ne gouvernement dama daanu ngi lebal la xaalis nga jugaat fii nag soo soo daanoo mbaar ngay dem daaj BCEAO toog. di wér di jaamu suñu borom ba xëy nga xëy ngay soo sa da gaaw a dee sax dee ngay def parce que loolu fi am. daa ngay bàyyi daaj maal bi seew. di ma la koo gis muy waxtu rek amoon na bis ba daanu. loolu fi am. kontaan nañu franchement tonton Mbédoune reetaan naa mais dégg naa ay dëgg xam nga lu tax dëgg du romb nopp tubaarikàlla macha allah te li mu fi wax it boo ko déggee da nga xam ne dëgg la xëy na it nga dégg ko tamit xaw a euh, mais bu def nii mais li mu fi wax lépp nit kay mun ko bañ. dëgg du romb nopp macha allah ay dëgg rek la fi wax ñu am mbégte contentement doon ko dalal bu baax a baax a baax a baax dañ lay ko wax yow it nga sant gërëm te kontaan nañu dalal bi la dalal. waaw moom xam nga rek nee naa leen Euh, àdduna soo fi nekkee da ngay da ngay a yeewu ndax ku yeewul yeewul rek at borom barke rek ngay doon. Mm-hmm. ñi jariñ la te doo jariñ sa bopp. Mm-hmm. te balaa kenn di jariñoo jariñal sa bopp ba pare parce que àdduna moo nekk àdduna boo xam ne ah dafa metti àdduna moom métti kenn mënul def lu baax soo defee lu bon nag di am ndam mais solo lu baax doo am ndam di gërëm tamit nag waa Ndumbalaan Amérique noonu laay gërëm parce que dëkk soo fa nekkee ñu naaw la surtout Gambien yi nekk euh, Gambien yi nekk Atlanta dañoo baax surtout waa Ajara Ajara kenn du ñoom mooy association association gambienne bi nekk euh, Atlanta ak association bi nga xamante ne suñu bàyyi Lamine moo ko jiite bi nekk euh, Atlanta parce que dañoo déggoo manko xam nga. di jàppalante. di nuyu ñoom Malick. ana benn zone bu fa nekk di jaay dibi Malick Ba doomu Pikine la xam nga xoolal kooku ba mu ñëwee dafa yàgg amul complexe amul complexe te tey mu ngi meg xaalisam mm, waaw Serigne Jolie mu ngi meg xaalisam tey tamit di remercier tamit sama jabar bu baax ndax bërki dem sama anniversaire mu dindal ma oto bi jar cinquante mille may ma ko ñëpp gis nañ ko loolu dafa rafet te képp bànneex boo gis ñoom dafay nañ ko ñemee te ngeen gën a góorgóorlu nag te xam ne fi yàlla rek a fi nekk gis nga lii ngeen di xeeb nii li si karawati bët am na ñoo xam ne amuñu ko woon de amuñu ko woon la dañoo ànd ak ngëm-ngëm ànd ak imposé wu te lii nii ko am nañ fi ay caméra yoo xam ne tey mën nañ ibbi lii mën nañ ko mën nañ ko am nañ ay partenaires yoo xam ne tey suñu lii ko dundee si ay Gambien ñi def ko tey am na ñoo xam ne tey man maa leen présenté ay nit te seen collègue lañ. billaay wallaay. xam nga mais dañuy ñaan nag lépp lu ñuy def rek yàlla ñu yàlla may xol bu rafet. kuy ñaan ñaanal yàlla xol bu rafet soo ko amul billaahi di nga sonn di nga jaaxle kontaan naa si yéen yàlla yàlla dafal jàmm waaye neex na loolu loolu loolu neex na waaye waaw xam nga jami jami jami nekk sama star la quoi jami sama star la moom moom sama star la moom parce que parce que jigéen jigéen soo nekkee bañkat danga may danga may neex parce que jigéen da ngay bañ nekk bañkat gëm sa bopp. fi kenn daam dara. yàlla rek am de. kon nag àndale rek suñu borom bu leen ànd ak benn doomu ko mm-hmm. ku ànd ak benn doomu aadama su daanoo nga daanoo. Mm-hmm. xam nga tey mbir mi ngay ànd sa li mu nekk sa patron solo waxuloo neexul wax wax wax dëgg. Mm-hmm. looluy nit. bu nekk sa patron ba doog wax dëgg. xam na parce que su la bàyyee nga ànd ak yàlla. that's it jeex na kontaan naa <laughs> bu baax xam nga moom it suñu la te en koy suivre voilà te boo xoolee li wax ci parcours am wax ko ci palmarès am loolu nit du fa jaar pare euh, te doo nekk bañkat ndax dèjà moom boo xoolee mun naa ne yoonam yëpp doomu Kaolack la gaa mais lépp ci banlieue bi la ko defee te banlieue bi bu fa duggee te ay xale am fulla am fayda am pas-pas ak ngëm-ngëm kese fa nekk te macha allah ñu am vision te boo amee vision maanaam ne lii mooy sama objectif lii laa visé ala kulli àll suñu borom dala ciy dimbale bu dee dëgg la ci yow di santaat bu baax di ñaanal sama papa fu mu tëdd ci Touba yàlla suuf Touba eh, oyof ci kawam ak bépp way dal bu mu fa nekkandool di ñaanal sama yaay ak bépp way jur yàlla bàyyi leen fi ba njaboot mu leen tëral di santaat sama wasila Cheikh Abdou Aziz Abou Madiana Mbacke xitmatul xadim di waxaat jërëjëf Serigne Touba jaral lakk ci Ibrahima